comme sama gars yi j'espère que vous allez bien président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngay dox doxalin woo xam ne ci diggante France ak Sénégal mucc na ay lool ñi xam politique ñoo seetlu loola Ousmane Sonko dal ne France nañu joyanti seen diggante waay ngir sénégalais yi nga xam ne dañu leen boomoon te ñu nekkoon ay tirailleurs France jox leen seen àq ak seen yelleef à titre posthume waaw kaddu ya daa daanu Bougane daan ne ko doo det balaa ngay lijjanti affaire Thiaroye 44 bi yow Ousmane Sonko lijjantil 86 personnes yi fi génn àdduna ci 2021 ba baa ngay jot nguur gi Bougane Gueye Dany daal ne Ousmane Sonko yow fexeel ba nga wax ñu lan moo amoon ca protocole lu teeru bàyyi soogi ba ma Madiambal jaañ daal ne Ousmane Sonko dafa mel ne saa yu Bassirou Diomaye Diakhar fay amee ndam moom loolu daf koy métti Thierno Alassane Sall it fabi xeer dóor ci kaw Ousmane Sonko amadu Ba ba mu demee Touba ñu laaj ko ne ko diggante état bi ni muy doxalee nii noo ko gisee mu ne nañ leen may temps ñu liggéey moom amadu Ba mu ngi ut a gis euh, président Macky Sall mu jafe ko lool waa AFP lankal ko waa parti socialiste it lankal ko jokk ca moom ak liggéeyam dafa mel ne ku bëgg a donn APR ak Benno Bokk Yaakaar mbir yi dëgër lool ci moom moom amadu Ba Serigne Bass Abdou Khadre a ngi ñaan état bu Sénégal ngir ñu taxawu leen. ci inondation yi nekk ci biir kër nit ñi te gi daanaka léegi mu yegg si waaw directeur ONACID mu ngay wax langage de vérité ni ci jamono juñ jotee nguur gi ak ndox mi ni mu mel nawet bi ni mu daanee seen kaw mënuñoo rek lépp lépp rek ci atum ren mi quatre-vingt-onze millions de milliards de francs CFA quatre-vingt-onze milliards marché gré à gré ci courant bi ñu doon yóbbu ci village yi Serigne Gueye Diop ministre bi ñu dénk wàllu commerce mooy wax kañu dàq ca ministère am teguñ ko dara ci ay par loolu lépp mbiri compétence la ba pare daal ne Nestlé produit yi muy jaay lépp au Sénégal mu ngi aux normes waaw kay yal na nu yàlla may kenn dal ak jàmm salaam.